आनी मेलेसी आनी मेलेसी आनी मेलेसी आनी kuréel sàcc Jakarta ñu lay jàpp meles yaa ngi yow mool nga suul kat nga ah ku baax yàlla moo nu suul léegi meles yaa ngi meles yaa ngi ku doon sàcc jakarta ñu lay jàpp meles yaa ngi maa nga doon sàcc mboto eh yow mooy doo refusé yow nuru nga ak waa Guinée de def waay ah jaa ngeen jëfaan yaa ngi jaa jëfaan waay na ngeen def waay <laughs> meles yaa ngi de <laughs> yaa xam ngay man sama rab mënul maîtriser lu xees de dama lay song léegi léegi beles yaa ngi de a jaa ngeen jëf ku baax na ngeen jëfaan waay a jaaraama waay jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf beles yaa ngi de yaa xam ngay football mën nañ la passe bal ci e digg terrain nga teg ko dënnu jirul ngay mel fa contrôlé ko jirul jirul jirul avancé moom jirul yow bu la neexee nga bu la neexee nga tolonaat bu la neexee nga demi volé te kenn du la gis. kële si yaa ngi. demi volé. kële si yaa ngi de. boo ko takk day def effet kay. waaw ñu ko la ci tànk ji la. kële si yaa. da nga yor ñaari jabar. ñaari jabar. kenn kee la gën a sopp ka kereet. waaw. bu la neexee tëdd ba minuit. waaw waaw. melesi waaw ne njagas njagas fekk keneen ki te kenn du la yëg melesi yaa ngi de comme xoolal kii xoolal kii ah bu baax xoolal kii day def effet de xoolal góor ñaa jaw rek day def effet nee na waaw bëgg naa si bëgg naa si bëgg benn yow nga ak sama maam de maa <laughs> sama maama dellu si ah yow nuru nga moom torop torop torop torop torop sax jidul ma ko man kam yu gis nga nga cee takk. man camion laa bëgg a takk xale yu góor yi dañoo lañ de. camion laa bëgg takk ci mele si. waaw di war sa waay. kii wala bu ma dugg nga dugg fa. di ko doon ba dee ko jeex fii. markat à la kilo. ba kenn du xam foo jaar. waaw waaw. <laughs> mele si yaa ngii de. ma jóg yaa ko la kii bu mu mel ne arbi doon douce. mele si yaa ngii de. waaye man camion laa bëgg a takk camion camion. <laughs> camion laa bëgg a takk camion. <laughs> yéen a ngi ci jàmm bu baax a baax. Eh, a jaajëfaan waa eh, jaajëf. Eh, eh. mele si yaa ngi de wóolu wóolu kii wóolu kii nga <laughs> ah ndaw si ah ah da ngay yuut ah yow yaa ngi nekk foofu yuut da ngay yuut mele si yaa ngi de man daa tëddal nit kon ni nga toogee kii yuut ko ba mu tooy xet bañ kenn du xam koo jaar. soxna si war nga ko xool mele si yaa ngi yuut Why guy, come on here. Bu baax na ngeen defar waay. Come on here. Ngi ci jàmm bu baax. Tawa tawa tawa. Bu baax xanaa xamoo dañuy tere tegante yi. Ndax terroriste yi dañoo nax suñu biir. Man dama man ñu leen na terroriste yaa ngi ci. Mu ñu wax dëgg nag. Terroriste yaa ngi. Terroriste ngeen doon nag mo ñu bañal. Da ngeen def waay. nga dañ doon def. terroriste. yow mbaa yemoo foofu seen dafa nga delloo. bon mbaa di ñu sa tubaab mbaa di ñu. waa d'accord waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye. win. koy wini koy. maanaam lan la kaare yoo ci nappe. voilà donc. tey naa dal. lan la looy mel ni koy wax ak ku nekk ci kaw frontière bi. frontière man. ah. su baax yow. xoolal ñu ne. daal di daal xool ñaata mën yéen la. waaw kafe naa lu ne. waaw ne kafe naa ko ay ponkale ay big moom. ponkale yi damay tànn. ak lan la ñaata ko koy jaayee. ku baax tey mais xanaa yaa ngi lay bandi la mais yéeral la ko naan yéeral yow yéeral wax la loolu wax la loolu. Ousmane yaa ngi tooñ Ousmane jublu ko tooñee ba Ousmane boo ñëwee ñii ba toog ci seetaan. léeg-léeg man yàlla de. yow Ousmane yaay kan. léeg-léeg man duma kenn. yow man bii mu rafet ko dugal rek ku bàyyi ji bi baal dugalul yow. man mën naa dugal benn bii bu rafet. mais ah? arrêté bu nekk arrêté ko. boobu laaj ko doon ñaar lay jar laaj ko doon ñaar. damaa ne lii lii ñaar lay jar. Ousmane nag maa gis ma gàddu ay laaj di jaar. ah. ah? yow gi na naqaree expliqué de. dama ne lii lii lii. Ah. mooy lan. waaw déggante na. ah déggante na <laughs> ah, déggante na. waaw waaw waaw. kii yee meles. meles meles. kii mën nga koo ne sa njëkk biis. biis biis ak ni mu doon. xam ak ay clients nga ne ko sa njëkk yenu. yenu. bon alors loolu nit ñi def na yow la gis. loolu mën naa romb nii te kenn du ma gis waaye bis bi daal diisaay bi ndax dinaa ko. waaw waaw waaw waaw diisaay bi daal foofu kilo bi nan laa koy def. bu la neexee yëpp ci ay client. yéenu bis bi. janga janga rek moom ba fu la neex nga ne ko fa tànk teg. balaa tiit nga ko. barke tiit na nga. mais la day def effet de. xam naa loolu. man xam loolu laa bëgg a sàcc. Ah, man camion laa bëgg a sàcc camion. ah yow nappkat yoo ah bu baax yow tuuti na de te nakaree napp. lii dafa ne camion moom la bëgg a sàcc camion. camion waaw loo lay sàcc ne loo ci la. ah bu ñu ko yàq. ah est-ce que yaa ma sentir. nga dégg a jafe. waaw napp leen daa jafe. dafa ne moom camion la bëgg a sàcc jéem. waaw xanaa camion la bëgg a sàcc. yaay kon nag léegi fii lay déggee. loolu daa jar di yuuxu di wax kaw lan la ah. yow yow yëngu nga de. waaw baax na waaw baax na. baax yaa ngi mel ni ku nu kaani rek di dem di ñëw. waaw baal bi waaw baal bi man du ma si nekk man du ma xeex ak yow man du ma xeex ak yow léegi lii lii ñaata lay jar ku baax lii ñaata lay jar doo kii ah yow li nga sant ay waay ay waay maa doon ma ñëw woo ko ma nag. waaw waaw jëf lii lii man santuma lii lii laa wax ñaata lay jar. ko ba yow sa sant nag kaa bëggatul xanaa. waaw wiir gële wiir gële. <laughs> wiir gële. yaa jëf lii waaw wiir gële. ay ah. kaay ma wax la. ku baax yéen a may baaj baajee de. damaa ne lii ñaata lay jar pourtant ndànk laa wax de bii yéen moom tooñ ma ndànk laa wax nga ne ma ne ñaata lay jar xaalis ko kii damay lay kii kii ndeex na kii ma ko a na ko baax kii ñeent téeméer lay jar ah ñeent téeméer lay jar ah. daa am leneen loo bëgg a xamaat wala dee eh, ma damay léegi da koy takk nii ci sens rek mu def effet wala da ngay dem ba yegg sa kër muy soog a def effet yow loolu ngay fi mais yow ñu bëgg ne borom sàcc boobu ay nit yow ku baax est-ce que xam nga ne kii bu desoon ci man dong waaw commencé naa fii. kon heure bi fan ngay dem. ngir dimbali ay nit ñu mel ni ah, ay sañ. moo tax ma ñëw andi lii. waa kay kon kii ndokkam du lu naan wala lu ma sangoo kii dama ah, koy doonu. ah d'accord yow ko déggee garang. Ah, doon seere. booba ay pël. ay pël wa. ñu ngi yor gerte yu bëree bëri. nii waaw waaw waaw. waaw looy ree. déedéet ma ne la ree kon kii bëggul ree bu ma expliqué ci sama maam daf may ñor de. waaw dégg nga cee bañ a ree. waaw waaw waaw non réew ma. parce que dañuy toll au nombre de cent. waaw waaw waaw. ñi tase di gétt di avancé. waaw waaw waaw. sama maam doo nga ñëw nekk kar ci digg bëri naa leer kar kar kar. waaw waaw waaw. mu ñëw ko yan kii rek. def rag loolu andi karak. ah mooy comme ku baax sàppe bi nga ma. waaw waaw waaw waaw baal ma. ku baax bulet nga ma. waaw baal ma. yaa ngi may lakk yaa ngi may togg. waaw ma doon sama bopp. ku baax yow lan kii da nga ma kan may ma dara. ku baax xanaa xamoo ni booy jixaat maa la njëkk a jixaat. ma jihaat dama ne yow ñaata eh. fois nga yëkkati par journée. comme kii déggul loolu da nga koy da koy jox. Ah. koy laaj. ah kaaj ku baax bëgg nga am laaj. yow ay seet yow sa seet yow moo ko woon ay wut ah? ngay dégg moo tax. waaw dama ne man ndax meles yi mën nga ma lan la ah lan la kon. waaw meles yi lan bu baax yow laay waxal meles yi loo ci bëgg mën nga wala lan. kon lan la ah bu dee mën mën baax man moom li nga ma roqos moom su ma doon mbër ba léegi daal ah man daal li nga ma roqos ah su ma doon mbër ba léegi daal ma ñëw ma diggéen non non micro bi doon mañ sa gàtt lan la non non xoolal dama ñëwaat la loolu léegi man lan la euh, euh, euh, yow ma dimbale la dama daa poobar wala lan la <laughs> ah ma ngi rek maa mutaar ba ma saf sax ah bu baax léegi nga wax ak sa mbokk bi jullit moomul ay tooñ ak yooyu quoi waaw micro bi dina ma sàggaat mu ngi ne moo nekk de léegi keneen ngay wax ne moo nekk na léegi waaw bàyyi ma jëlal ko dégg nga kay wax ah. waaw waaw mu ne ko mu ne waaw waaw bu baax lan la eh, lan lan mooy xàqal di ko nga bañ a di ko lan la ah yow dama la dama la roof wala dama laa koofi kaani. wala dama laa ginjeer lan la. yow lan nga réeré. ah ma ne lan nga réeré loo réeré. mu ñu ko wax aw ah, tax ni ma laaj. yow yaa fi gis ku réeré. mu ne yow lan nga réeré. <laughs> baax yow lu tax booy wax ak man di yooxu. waaw man ki ngay waxal nekk fii wala ki ngay waxal dafa dëkk wala lan. wax nga dëgg de man sa micro laa sëkk su ma. ah dégg nga wax nang. waaw. mu ne yow bi la dal mayu rek dara du la ko may. d'accord d'accord léegi nànk rek. mu ne yow lan nga reere yow. ah <laughs> mu ne yow lan nga reere lan. ah yéen de nagoo leen. yow yow yow yow sa jëmbo yow lan nga reere. bu baax yéen jox leen reer dina métti de. léegi ne ko ñun jëndatuñ léegi na demee nag ñun jëndatuñu. jëndatuñu jëndatuñu nga nit ku xamul fan nga. léegi nit koo xamee xamoo fu mu kii fee. jëndatuñu nga war ko jox reer. mu ñëw tey mu walaayal moom mi moom dina métti de. jërëjëf bu ko laaj laajal ma ko lala ree rek te yàlla rek tax laajal ma ko loolu noonu. Eh, waaye déedéet ma ñëw bul sëgg xool sëgal noonu ci ginnaaw. ma bañ dafa ay ay ñu jënd wala jëndu leen laaj ko yow laaj ko jëndu ko laaj ko rek. jëndu dañoo bàyyi bàyyi nañu. meles meles fu ñu ko laajal ma ko ngir yàlla rek xool affaire la. waaw mu ne kii mu doon yow loo réeré loo réeré ah. commencé yow lu ma réeré loo ci wut. li ma réeré ku ko réeré mel ni ma. loo réeré ñun jënduñu dara dégg nga. ah bàyyi nañu ko jënduñu dara bàyyi ko bàyyi ko micro bi ko moytuwul bàyyi ko bàyyi ko. baax nga ne la yow jaayal fu la neex ñun jënduñu bàyyi nañu bàyyi. bu baax koy saaga. saaga wu ma la bàyyi nañ ko. dafa bëri problème dafa bëri problème dafa bëri problème. waxtaan ak yéen di indi jàmm ngay saaga. jënduñu bàyyi nañu. yow ku baax yaay kat. Ah. yow lan nga am rek ak fan nga toj ba war maa saaga yow yaay kat. saaga wu ma la saaga wu ma la. kooku di mu mel ak dara ah. bu jigéen ñi. saaga wu ma la saaga wu ma la. ku baax kay ngeen naa dal. fii dama koo maîtriser de. kii mu bëri garal suba ba ngoon jot. mun naa la dee garanti yan situation la ñuy nekk. ah karam suba ba ngoon yow mën nga ko wax. xanaa xamoo karam diggante fajar ba tisbaar climat côté am say kii fii nii. côté climat côté fii am. côté diggante tisbaar nag. waaw ñëw après timis climat sérieux mooy am fii karam climat sérieux waa kii moom day ñëw ko. li gën seen timis nag ñëwaat fajar. climat su daa ñëwee di doog a waaxu nag di dugg si. comme xam nga kii dañuy def. <laughs> kii dama koo maîtriser. waaw waaw dégg kii dañuy ko dañuy considéré ko comme. ah ma ne dañoo waxuma dañuy considéré la laa wax. man kay doon moo xam. yow dañuy dañuy considéré la. ah loo raay ngay wut. ah bu baax yéen ñeme ngeen de. waaw suba kii de suba lay dégg suba. bu baax xam ngeen lan meles yaa ngi ñun jëriñu leen jënduñu. ah jënduñu ah dama leen doon dimbali de meles yaa ngi de. jënduñu ah kon baax na. oh mel na kakatar bu jigéen ah wax ma dara. comme ma dara wax ma dara. maa bëgg ma dama lay kat. kaay dem bàyyi ko dem. amortir man yow booy ñëw ma lay amortir. waaw d'accord waaw d'accord demal demal demal amu leen fit ay gone ay jaameen ngeen. ñëwuma amu leen fit. comme mu mel ne arbitre de tous mu mel ne arbitre de tous yaay booy na ngeen def waay meles yaa ngi de. ah xam nga ni nga eh, maa doo planté. ki dama ko a ah ni ngay reetaane am na